bu ma jógee ci loolu damay ñëw dafa mel ni yaa nekk coordinateur Leewtoo. waaw euh, depuis 2017 2018 man la ñu ànd ak def sept journée mais huit grands combats ren euh, ñu taxawala taxawalagum euh, Boy Niang ak Tapha Tine doon négocier Sa Thiès ak Garga donte amoon contrat verbal xalaat nañ liñ yaakaar buñ ci jotee dinañ ko finaliser mais boo amee keneen ku ko tëggit dañuy dem witi leneen rek mais mi ngi bokk ci suñuy programme waaw ñu gis ne taxawal combat dafa xawoon metti tuuti ndax su ma jumul waxtaan ngeen ak ñoom ba déggoo ci kàddu mais après dañoo dem ba ci biir ñu jékki-jékki gis Boy Niang génn def sorti Tapha Tine def sorti parce que jotaguñu woon avance suma ma mais ñu dem ba ci biir ngeen am lu leen mosolo ñu toog est-ce que nekkul euh, affaire yi dafa xaw a kii parce que gis nañ ci euh, Sa Thiès tamit ak Garga Mbossé ñoom tamit waxtaan ngeen ñoom ba tënk mais ku ci nekk jotagul avance ba ñoo ngi naan sax ñoo ngi dégg yeneen contact te bu ñooñu sottee dañuy dem ba ñooñu lan moo boole ko loolu. waaw noo tënkal naa la ko naa ñee contrat verbal la amoon. Mm-hmm. ba léegi mi suñu programme bu ko keneen tëggee du garaaw booy ñaata fàttin am na yàq yu ci amoon duma ci wax dellu si naa ci ndax li ma naan kenn du feccal dof mu toog ginnaaw wax naa ci la ma ci doon wax bëgguma ñu ma ne fi di xulal ñoom calis noonu duma ko def. mais ba mu ñoree wax naa ci la ma mën a wax ba léegi ñoom ñaar ku ne jël nga sa avance def nañ benn face to face bu mag li ñuy waajal mooy saison bi ubbi ñu jël date mottali avance au complet ndax da ci am lu côté boo xam ne CNG lay dem wàllu sponsoring bi lañ leen jox ba ñoom xaatim nañu contrat ak seen i manager ñi seen i agent léegi li ci des mooy mu CNG bi ubbi ñu dem régulariser mu officiel ñu commencé face to face yi ak promotion au combat bi. mais li ci ginnaaw moom dootuma ci wax ndax it nag wax naa la ko léegi bëgguma ñoom calis toog seen i ma leen i xulool moo tax ma ne kenn du feccal daf mu toog mais ba wax jotee wax nañ ci li ñuy wax laa bay continue ñu ñaanal promoteur yëpp ñu am réussir ndax tëgg làmb dafa métti ñoo ngi lay jaajëfal di la tàggu beneen yoon mais di kontaan ci yéen rek affaire bi guddoon na waaye nag li ma lay wax rek bu ñu ne làmbaloog da tiit ndax yëfi ñëpp la ñu bëgg na la yow da am xam-xam mais ñu ngi leen di ñaanal ca kaw sa kanam euh, ci seen site bi macha allah ni ñaa ngi koy bàyyi xel baax na yàlla yàlla mottali kon ba yeneen i jamono lu ci rafet nag borom bi la mais lu ci rafetul jàmbu xeebu moo doon wax rek mais lu baax laa ci jublu woon jërë ngeen jëf ba beneen yoon. jërë ngeen jëf.